dal Jam, c'est seen boutique Lodeco Lodeco nekk benn boutique boo xamante c'est la meilleure sur toute la capitale sénégalaise xoolal ma rideau yi façon couleur bu nek am na fi lii Lo Lodeco rek la Lo Lodeco am prix en gros waye tam am détail fekk dëkko capital ku ci siisu da fekk dëkko capital su kombine selo ñëpp dañuy laajte namoo ñu dara fépp la ñuy wàcce ñun dañu nice ak suñuy vibes tegal fi sa loxo fi mooy capital eh waa mais kii kan la njëy Wah, waaw mais <laughs> njéeme ci ne papa as yaa cool yow looy def fii ah mais damay naawal samay cokkeer <laughs> yow iya, ah, say affaire say mbir leeratul non non dara la bokk nañ ay ay ay ruk. kan maag yow eh bu dee ñoo bokki rukk changel say rukk de samay dafa de <laughs> man xam nga ne sama rukk daa sedd ndax yor si sama liggéey laa nekk ah waaw mais oh, loolu yow course def bari eh, am jëkkër am farlu ci bari nañu ko fi def de subhanallah yow sa gemmiñ lu bon rek ci genn xolo koor ak ñak koor mais man damay wax li nga xamni moy am ci town bi wa baxna man dama yon newu ci wa mais wuy ma nak xam nga fan yëpp man ma lay jeex ci biir kër gi mënuma la gis ndax yow jamono dama lay togn ni mais mais yow teel xey guddé guddee wàcc ngay dund yow man xamna la baax ha <laughs> ah, wa mais naka wa waara ngi ni am nga lo nar waxal rek ma lay dégg wa mais jox ma dara <laughs> man mi wa ma jox la dara wa <laughs> tey <laughs> sama doom nday nga dee waaw bu ko yaakaar ci man ah oh. lu ma lay jox dara pour lan ma ko soxla loo koy doyee damay dama koy soxla loo koy doyee waaw pour samay bëgg-bëggi bopp yoruma yor naa sax mais maa oh, la mayul non ta kafoo quoi yow ma dama sikk ak yow may la xaalis tamit nag papa as wala liñ daje fii moo tax yor naa mais man maa la mayul gis nga njéeme man maa lay def test ni di la xool rek ah. mais yàlla ya moo dogal yow sa xol bi moo xat problème yow fi mu ni ngay sañsee nii ku ne defe ne yaa ngi def lu baax nii. Hmm. mais xol bu bon nga yor. bu ñuul bu ñuul kukk. Hmm. kurum kakk. <laughs> bu fekkoon lu ñuul te lëndëm crise ñu wax ko. <laughs> nga tudd ko kon instant yi foog naa ne leneen la ñuy wax. ñi lëndëm le bari na kon. waaw kon xam nga ko rek baax na kon lëndëm le bari na kon bàyyi ma ma ñuul. ma bëggoon nag booy génnati nga liir météo. ndax la yéeme li nga sol dara baaxu ci. col gu yàgg nga sol. lii ñoom sunu maamee ñoom ni maam neexaan sangaane. Hmm. ñoo daan fal sol a colin gii. tàmm naa ci yow ay xas xamul loo sol. amul problème fi bu ma nit ñi romboon sax jàpp ni xam ne maa ngi dëkk rek man lool defet la ci man. <laughs> ndax li ma la ñàkk may xaalis on avance. xool nga ci suuf demal. xool nga ci sa suuf demal ni demal bu fekkoon lu lekk ni kàkkatar ñu wax ko. nga mel ni lekkatu xooñ. sim kooku taat bu suufee bi. taal bi de nii la toll waaye demal demal xol ko neena day wéej di nee day wéej ak xotti eh ça va. ça. ça va tu loo nekk. maa fi ça va. ça va wàllu lenge bi. lenge dama kaa fàtte sama gàll quoi. tey ça. lépp jàmm yaa tane mbaa. maa ngi tane kay. ah non hmm. allah. pour la. pour xam day ñaanal njulli mu gaaw wér. <laughs> sëriñ bi ñaanal njulli fu mu am. fan. am na benn sëriñ boo xam te nee na julli bu bees moo sa aay. <laughs> saa tee ngaa bàyyi sa xel bi ngay foowee. Hmm. sëriñu ñulli fan la am. man maa yoroon sama yaay di seetaan ba si yàgg ma ko si internet bi. <laughs> internet. waaw leen loo leen gis si internet bi ngeen foog ni dëgg la. mais dëgg la. sëriñ yu aay ñu ngi seen kër toog laajte wuñu dërëm. Hmm. waaw. dama ne maa bëgg George gaaw wér quoi rek daa am projet yu ñu war defar ay job saa xale bu ndaw looy doyee George wër doo bàyyi mu ñëw naturellement. waaw damaa bëgg mu gaaw xale nga régler sa place xale. ma maa xale. waa do xale lan nga. ma maa xale man man may mag nga may naan xale nga. sa yow mag. man mag la. saa yemal sa place su xale. Hmm. nga may wax ay mag nga te nga bay li mu wër naturellement. bu subaa rek gis mu wër bu subaa. waa kii nit la mu nan xale nga. bàyyi eh, ba la si yow laa stage si yow laa sax yow. ay vidéo am gis TikTok ni billahi koku ndaanaan la ci biir ndaanaan yi sëriñ bee aay ci boppam non dafa mën déggoo ma ne la sañ naa ko dénk sama bakken sëriñ bu aaya aay boo xamante ne boo fa demee da doo ko réccu voilà jàpp après dinañ déggoo léegi dañ yeggal suñu waxtaan bi whatsapp waaw dafa am ku ñu rax waaw d'accord ñu def noonu. waaye ko yow léegi ci ay affaire sëriñ ngay dox léegi yow. yow Pape Fodé déglu ay waxtaan jàmbur moo la dese léegi. Hmm. wallaay déglu ma sa waxtaan de dama la xamewul yooyu di te ba pare nopp dafa amul kubéer sax. yow Pape Fodé xanaa du yaa ma doon wax doomu julli day maandu. maa léegi ma lay wax loolu léegi day tax yow ngay ngay def li ngay def nii koo ko régleel yow ma laaj la sa yow sa sëriñ bi ngay wax nii naan ñeme nga ko dénk sa bakkan bi aay na sëriñ bi ah. Pape Fodé sëriñ bi ngay laaj yow ba xam aay na Pape sëriñ bi moom la askan wi doon xaar gis nga kooku doomu jënne la xam nga jënne yow fan nga xam ne sëriñ bi xam nga jinne Maymuna yow jinne Maymuna waaw xam naa ko damay dégg turam sa ñu ko waaye xaw ne mosuma ko mooy papam kooku du capital taan bi tar na nag metti na dëkk bi dëgër mel ni yàlla daf maa fàtte awma dara yoruma wéruma bu may tiit di dee yàlla bu ma kenn tiital yàlla bun ma tiital man yara ndombe gi ma sëñ bi joxoon essayé ko jot na nag comme ma ràngoo ko bugg ci temps bi Lan bu saplar. Mansour Mansour Mansour waaye kat sadi waaye sëñ bi waxoon na bu tey laay toj dëkk bi yow comme gisoo ma jarul may nuyuwaat keneen ci taawoon bi soxna si soxna si ah, billahi mu ngi suytaan faj oyo lan la. jàmm la de. xëy na dama laa déggul dama doon dem ne. it day jax yéey toog toog toog toog toog soxna si lan la. du dara. ah kay yow mii di tërëf eh soxna si lu xew doo wax ak man. du dara du dara. waaye dara la waaye tamit soxna si. yow mi doon daanu fii léegi ma téye la ah eh amal man confiance nag lu xew. naa la du dara. bàyyil du dara ay waay pitié wax ma lu xew si lan la. nee naa la du dara. ay eh, bàyyi loolu nag yow itam dara la waaye doo wax waxal ah. damaa ëmb. alhamdulilah rabbil alamin ah. ëmb tax di joy ak ëmb nu mu nexé ci xol doom ñi ko bëgg am ñu ko am nga am ko di joy eh sa jëkkeur contane na yow nak bëgg na ci yow am nga doom am nga doom sa jëkkeur contane na yow. mo doon sama jëkkër moo ëmbal du ma egg si ku la ëmbal. Sëriñ na nga def. doom bu baax. alhamdulilah ah, alhamdulilah man de dama amoon soxla. Mhm. ma amoon soxla soxla bu jàmp muy soxla famille. waaw dama duggoon ci page sa TikTok. Mhm. gis que ni sama soxla mën nga ko faj. Mhm. waaw dama nekk ci kër di sëy. def naa fa cinq ans di fa sëy ba léegi mun ma fexe ba am fa bant. ba mu taxoon sama jëkkër takkal ma wujjum. sama wujju ba mu fa nekkee léegi amagu fa sax at. te teewut mi ngi ne ëmb bay waaj a am doom. ma bëggoon nag nga ñaanal ma ci loolu ndax ba ma duggee sa page gis naa que ni am na ñoo ñaanal ba instant bi gis nañu résultat. Eh, jërëjëf sama doom da nga yàkkamti wax rek waaye bi nga ne ci bunt bi nga dugg see sama jënn yi wax ni wax yëpp luy sa problème da nga yàkkamtee wax rek waaye mën nga def ndànk rek mo wax la lépp xëy na ngaa jaaxle moo la fi indi. waaw ngaa jaaxle trop bi ngay wax moom gis naa lépp mu ngi nii mbaa ndox doxul timis dégg ngelaw moo la dugg waaw ngelaw la dugg parce que booy dox da ngeen sol lu gàtt lu gàtt loolu moo ne jàpp fu mu toll nii dafa nekk ngelaw mën di sa naqali di dox noonu instant bi jàpp sa ndigg li ah sa boobu day faral di metti ah. sa tànk yi tamit si suuf day tànk dëgg la loolu am ok baax na dafa ndànk baal leen ko taxaw leen tuuti yow nga ne yow bu ndaw non non ah, taxaw ni non samay doomi ndaw yi laay xool jinne ndaw yi nii ok waaw ah am nga yaakaar ci moom ah alhamdulilah na mën am doom kon baax na alhamdulilah. alhamdulilah waaw dinaa la faj incha allah. incha allah soob fi sa aajo fajoon laay defal. waaye ma kenn ba am na benn mbër bu fi nekk man maa ko sang defal ko ba affaire mu nekk roi de Sarane tey. waaw kay incha allah soob yàlla. am na sunguf yoo xam ne bu ma sunguf saytaane la ak. Euh, garagne boo xam ne nga koy takk bu fi daw te bul sekk dégg nga bul daw de dégg nga akay akay nal ci compal dafa lay bo demee nga sango ko mm. waaw bi te mo ngoy suut ci bir kër gi ya. d'accord bi mo nga tak sa ndigli d'accord mo ko takkar soob yalla bis bo sey sa jëkkër mom inshallah di nga am doom ba yàlla kii waaw ok ok daf leen ah daf leen ndànk waaw dafa am ñu ñëw waaw xaaral ko mu ngi ñëw xaaral ki pare lu mu pare ñaata fan la ko suuroo oke, jalan-jalan. fan bu ko fàtte de nee juróom-ñaari fan ah. ko def comme ni ko waxe juróom-ñaari fana koy suur ha ah. ok xam nga bind naa ko bañ ko fàtte ah. ah jërëjëf. ok xam bu ko xaaral. capital fii mooy capital. capital Be ah, my capital. xoolal benn tiktoker moo ko saaga soppi na ko muus si saasi man maa ka gis nii. waaye léegi man dama lay laaj yow jot dem wala de wala xam nga xam nga mus nga koo fréquenté. ah dew ma fa nag waaye laa gis tiktok nii mu si kaw asamaan yow foo de mënoo comprendre ma lay wax. mooy ko man nag yow da nga ma yow kooku da nga maa jaaxal nag. waaw léegi defal ndànk dafa ay yow xamoo ko Moustapha dem lu dul ay vidéo rek ci tiktok bi. allez yow loolu wér na. ah waay bu ma ne ah waay koko dafa am loo xam ne xela koy mottali seen xel yi dee ko dee leen jëfandikoo seen xel yi koko weeru koor bi mën nga xool leneen ci ci ci internet bi lu loolu loolu sëriñu naxaatikat yi dañ fay bari bàyyi ci xel waaye nga toog fii naan day naaw ci air beeg day dox ci air beeg day lii te yow koo xam ah? man pour man koo xam ne xam nga ko sax ba bëgg nga yóbbu ma fa sax yow Pape Fodé gis nga yow ni nga ndawé ni moom eh. la sa xol bi boné yow kenn warul man ndax mëno dara waaw ah, baax na sax mi ngi may wo lu gis nga ko ci wax rek mo nan la ay dañ may wo na dafa am sëriñu defar kat ak sëriñu xam dañuy yaq waaye ñi ci internet bi man gawma len man ah sama xalé bi Robert niñ ko fi Nan ko mom mu am jabar di soog am jabar ñu ne mu ne luy wut luy deugural ngor dem top len ci internet bi non lañ ko def jël affaire am yëpp la xal ay waaye xam naa ne waaye bañ leena tok rek serigne man lan mo tax sama xel au lieu que muy nekk ci sama jëkkër sama xel ci sëñ daanaan kese lay nekk hay tay mom balaa ma tedd ci lan tay fook ma gisante ak señ daanan dama ni ma nara def est-ce que na sax alaykum alaykum Sen bi. ko xal la. man la nday bu Ndaw. ah Ndeye bu Ndaw. yak sen salam salaamaaleykum. aleykum salam sen bi na nga def. ah, ya, ah maa fi rek. Eh, yaa ngi si jàmm bu baax ah, jàmm bu baax kay. waaw eh, tu te rappelles kérok ma fi ñëwoon doon la wax sama problème mu am doom bi. waaw. waaw dama gis que ni ba ma utiliser sa garab yi ba léegi. waaw ma ko defee ni nga ko waxee ba léegi. waaw seetlu naa boobu ba léegi sama xel dafa nekk ci yow. ba léegi. sama xel dafa nekk ci yow. ah, ah. dama ah, maa ko teree ne. waaw jàll fee maa ngi lay xaar. uuf yaa ko teree ne ah. yow kese laa xaar. way ndaw samba cam cam cam cam mbay cam woy eh eh bi cuut na la ko doot na la ko dootati la ko yow bon yéen a bëgg sëriñ topp sëriñu internet yi topp sëriñu internet yi yaakaar ñoom ñooy créer doom ñoom ñooy defar doom ñoom ñooy maye doom doom yàlla moo koy joxe ku ko jox ko jël ku ko joxul nga toog muñ loo ko cot cot cot cot eh eh lii nag doomu sëñ bi la doomu sëñ bi la mu lay neex mu lay naqar doomu sëñ bi la ban site la tey abonnement yi dina bari de baa xamal ne kii abonnement ci la bokk buy ne puj di abonné di xàmmee baayam sëñ ay sëñ sëñ bi def na la ko de duut na la de eh looy sëgg yow doo siggi yaa fi de sa bu ne weŋ dem si sëñ bi mu diwlu ko oh, cay sëñ bi bandi hmm. yow dafa mu nekk nag bis boo doxantu ñuy topp sa ginnaaw yëpp dañu abonné si sëñ bi dañuy xam ne lii jiru ci kanam yi doom sëñ bi la ay foo jaar di nga bëri di nga bëri ñu la contacté di nga am leen jom yéen di ngeen sëriñ tu sëriñ tu sëriñ tu ba bu bés bu demee fële ay ku fa sëriñ bañ jàppal eh eh eh eh sigil wujjoo. wujjoo ah ah iti iti waaye gisoo ma bari nga fa trop waay. ah wuti ah? ah, ah, demal la waa taxawal. wuti ah wuti ah wuti ah. yaa ngi may gis waaye eh, gisoo ma waay sëñ bi waxuma woon lii dañ ma woon lii invisible la. ah dañuy invisible lii ma ko takkee doo ma gis. ah di waaw wuti ah te ne yaa yow yi. kan yàlla yàlla gis na. tam ñoo ko. Eh, yow eh baa li ngay def. dig ma eh man ma oh, man genn wàll oh, nit laa oh, de defal ndànk man genn wàll nit laa de dig ma eh waay capital fii my capital capital ah. fii my capital wujjo oh waaw waaw wah, wah, ma jóg wujjo waay dimbali ma dimbali ma dimbali ma

Capital. Yeah. Capital. fii mooy capital. neexul. daa fekk ko capital ku ci siisu. daa fekk dëkk ko capital. su kombine selo. ñëpp dañuy laajte. na mu ñu dara. fépp la ñuy wàcce. Golf ist ein Loch y Capitales